buntu tojum njàpp yi tojum njàpp ñaari xaaj lañu ñoo di ay xew-xew aki sabab xew-xew yi ñoo di saw ak xayit ak ngelawal ak masiw ak wajiw sabab yi nag ñoo di nelaw yu diis ak xëmte ak màndite ak sallum jinne ak foon jigéen laal jigéen yitam dana tojum jàpp bu fekkee da ca jublu bànneex wala jublu ko ca waaye fekk na ko ca laal sàkkara ca biir tenq wala biiri baaraam it dana tojum jàpp koo xam ne dafa sikki sàkk am jàppam toj na wala déet jàppaat war na ko ndare du dafa nekk koo xam ne xelam dafay farala jax-jaxi kon waru ko war ci mukallaf itam mu raxas sa karam sépp ci bu masiyo waaye du raxas ñaari àndandoom yi masiyo nag moo di ndox mi nga xam ne mooy génn ci bànneex bu ndaw sababoo ci xalaat jigéen wala xool ko wala lu dul moom daga daganul ci ku jàppul muy julli wala muy wër kaaba wala muy laal yaxu alxuraan bu tedd bi wala der ko muur waru ko laal ci loxom waru ko laale bant wala lu mel ne moom lu dul nag xaajum alxuraan mu ñuy jàng loolu wàññiwul dara daganul itam muy laal àlluway alxuraan ju tedd ji ci lu dul njàpp su fekkee kuy jàng la wala kuy jàngale ca àlluwa ja wàññiwul dara gone gu laal alxuraan nag moo mag ñoo yem ki ko jottali kaamil ba mooy tegoo bàkkaar ba képp ku julli te yorulu am njàpp te tey ko yéefér la yàlla nañu ci yàlla musal